asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax foo leen ci nekk di leen bàyyee xel di leen nekk dañoo dellu siwaat seen émission 7 voix du cœur sur la 7 TV ci mbégte lool lool ah euh, bi ñu ñëwee tey jii ci fi nga xam ne rek euh, mooy Kër Massar Case ba euh, dañoo ñëw nag seet suñu benn mbokk bu tudd Idrissa Sagna Idrissa Sagna nag moom lii la maanaam maçon coffreur ah, maçon coffreur la mu doon koo xam ne rek da doon liggéey fële ca Médina ci benn bâtiment bu mu doon liggéey euh, daal di rek euh, di def euh, coffrage yi mu jóge troisième étage daal di daanu si suuf bi mu daanoo nag biir liggéeyam la nekkoon mu xam ne rek lu doy wàlla ndax nag loos bi moo damm mu am fracture xam ne rek mooy ay gaañu gaañu yu garaaw a garaaw depuis le mois de décembre tëdd ci lañ tàmbali paj mi ba tey waaye nag yëf yi xaw a doy waar lool dañuy dalal ki nga xam ne rek mooy frère am ñu ànd ak ñoom ci naka lañ koy dundee ak nag soxla ndimbal lool lool lool jaarale ko ci 7TV ci seen émission 7 voix ku baax nuyu nañ la. soxna si maa lay fay. tur sant bi. man Chérif Sagna laa tudd. Chérif Sagna tey ñu seet si leen fii ci Kër Massar euh, Kaas ba ñu ñëw seet si sa euh, frère Idrissa Sagna ma bàyyi la rek euh, nga nuyoo laata nga ñuy wax li nga xam ne rek mooy maanaam li ngeen di dund ci li nga xam ne rek mooy feebaram bi. gannaaw ba ma yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi maa ngi nuyu ñëpp di nuyu téléspectateur seen 7TV. di nuyu Sénégal yëpp di nuyu samay mbokk di nuyu samay waa kër. Euh, di sant ñëpp daal waaw. Euh, sa frère gis nañu li ko dal euh, maanaam jóge li nga xam ne rek mooy troisième étage daal di daanu ginnaaw bu mu nekkee ci liggéeyam muy bés boo xam ne doo leen ko fàtte ndax ci la seen maanaam coono àdduna commencé ma bàyyi la rek nga wax ñu naka la demee woon jour boobu ak naka nga ko yëgee. waaw soxna si nga ma question bu am solo question bu neex répondre parce que mbir mi bi muy am man dama nekkoon repos ma toog fii ci buntu kër gi ay 11h ma yor sama portable di connecté soxnaam génn di wax ak man. bàyyi ma ci xel sama soxna ne ma tenn yow lay waxal ma ne ko lu xew mbaa jàmm ma ne waa jàmm la ma ne ko lu xew ma ne ma Idi moo daanu fi muy liggéey ma ne daanu fi muy liggéey mu ne waaw nan la daanoo mu ne ma ah dinañ daanu fi muy liggéey ci saa si il faut nga ak dal. Mhm. parce que lépp sunu borom moo koy dogal. Mhm. ma ak sama yaay ak soxnaam ñu dem hôpital CTO mais laata ñuy egg CTO dama woo sama benn rakk bu fay liggéeyee bu nekk bureau des entrées. Mhm. woo sama benn rakk bi moom moom rakkam moom mi daanu rakkam Ousmane. woo ko comme moto la ñoom ñëpp chantier li ñuy liggéey moom moo ngi woon ngor ma woo ko ñoom ñu daw dem hôpital. bi ñu demee hôpital ñu fekk ñu yóbbu ko urgence ñu ñu jógee fi dem yegg fa ay 15 heures ak yoon bu xat bi bi ñu ñëwee fekk ñu dugal ko urgence. tegal ko seen i yooyu à la appareil électrocardiogramme maanaam lépp daal loo xam ne dina mën a sauver doomu aadama. ñu sauver ko loolu lañ fekk ñu def ko muy bës bu metti man bi ma koy gis man. muy man muy soxnam sama rakk bi. ñun ñëpp suñuy rongoñ dafa tuuru. Hmm, ndax lan nan ngeen ko fekkee. ndax métit bi. wax munu ko woon machine yi rek ngay dégg muy sone te ki xëy dem pour njabootam. Mm-hmm. ñu woo la bëccëgu ndar kàmm ne la dafa daanu entre troisième ak quatrième étage. yow bi ñu la waxee ne dafa daanu entre troisième quatrième étage fekk gisagoo ko lan nga yëg. Euh, nga nekk mag ci kër gi. Euh, seen wayjur bu jigéen dinañ ko xool léegi euh, laata loolu sax dañuy dem xool moom. si boppam la ñuy dem déglu tuuti ci li nga xam ne rek mooy témoignage muy loo xam ne lu doy waar la ñu dem seetaan ko daal del soit léegi ci waxtaan bi laata ak ki nga xam ne rek mooy frère rab léegi léegi lay doon sur la 7TV ci seen émission c'est la voix du cœur. nekk na loo xamante ni sama sànc la yàlla dogal néew boobu moo ma dese woon. niveau troisième boobu laa ne woon may génn fii di xëy ma woo suma benn ma woo suma benn booy ne ko léegi dangay xëy méman dangay ngay xëy chantier booy ba ngay tudd Ibrahima mm-hmm. mu ñëw jàppale mu bu may génn fii sama kër yàlla rek moo tax may wax programme moo woon sax liggéey mais nag mbiru sunu borom bu ñëwee da ngay xam ne mbiru sunu borom moo ñëw ma yéeg ci kaw fekk ko fa ma ne ko nañ laaj nañ daaj ñaari poto yi buñ ko daajee pare mën nañoo wàcc waaw parce que man dafa am bu ma tam war a jaar sama yeneen chantier yi mu ne ma war yàlla fi ma taxaw di fi ma taxaw daaj nañ fa yaakaar naa daaj nañ fa quatre xaw ma daaj na ba su meekuwuma sax fi ma taxaw noonu automatiquement rek dama pare ma ne ko man damay ñëw dem sama yeneen chantier yi yàlla ñëw mënuma ci dara man fi ma taxaw li ma yóbbu man sax xaw ma ko parce que dafa amoon beneen amoon nañ ko benn patio vide comme nii la mel patio vide yi comme nii lay mel waaw man dama jékki-jékki rek damaa jékki-jékki rek dem teer waaw. ba ma daanoo. ma ne saron yàq ngeen suma àdduna dama yor njaboot mu ne ma non non non non lii dinañ ci génn lii du dara ma ko yàq ngeen suma àdduna ba pare. boobu sentir nga ne affaire bi garaaw. boobu boobu sama boobu boobu suma suma baat bàyyi métti bàyyi ba wàcc. yàlla ma suturaal foofu may wàcc bu doon am ay bu doon am ay bagage kon man kenn waxatu ko kon saraxal nañ ma bu yàgg même mbiri sunu borom fi ma doon wàcc genre genre lii la rek ñu teg ci dara ma jaare noonu wàcc mais ba may wàcc sama loos moo dal métti na trop trop trop trop trop li may dund métti na parce que bu dee weccet weccet bi ma yoroon def naa ko ci sonn naa trop trop trop trop sama yaay sonn na trop trop trop trop daw na guddi daw ba cëkk dem na ba amatul dem na ba amatul lu ñu jox dund nañ moment yi difficile lañ dund waaw yàlla rek moo tax may wax dund nañ moment yi difficile métti na de sax peut yaa ngi may jàppale waaye métti na de bu ma la koy wax sax ay jooy ñoo may dese bu ma la koy wax ay jooy ñoo may dese métti na boobu ba léegi maa ngi tëdd depuis décembre ba léegi maa ngi nii di tëdd waaw def nañ ci lépp lu ñoom def nañ ko ci njeexal takk takk takk li liggéey souvent ma dégg leen ñu woote sama téléphone jabar souvent ma dégg leen ñu woote sama téléphone jabar man sama téléphone dama ko bàyyi wax ji nii sax c'est la première fois tey bu ma tëddee ak léegi non ñooñu moom fu mu toll jàpp ci faj bi géej naa leen teg parce que man jàpp ci faj bi man mi tëdd kan mooy régler problème boobu ñii ñoo koy régler ñoom dem nañ bay ba yàlla dogal na xamoon nañ man fi ma ne woon doon liggéey ñoom xam nañ ko waaw fan yële passé su ma benn frère ki topp ci man ñëw naan di trent mille ñëw na ma Issa moo la ko jox Issa moom ma ko jox mais nag maçon yi ma jëloon yëpp dañoo dajale seen loxo maçon yi ma jëloon maçon yëpp dañoo dajale seen li leen pas bi waroon jour ba jee gis sama doom bu may génn fii dama tàggu sama jabar ko may maa ngi dem ñëwaat léegi pour nax sama doom que saay woowacee sama doom dafa daan waaw affaire boobu woon a barkeeloo ba mënatuma toog sax sànce dem naa ko dama dama dem ba yàqu mënatuma soo toog sànce damay toog tuuti rek ma ne gars yi wàcc naa ñu naan ma yow xaw la la la perte defal ci sa àdduna mais jaaxal na ma mais kii xale la kii mënuma jàppale kii xale la doom bu jigéen xale la bu baax a baax a baax a baax a baax mënuma ko fay mënuma ko fay benn yoon bu ma ak ay mbokkam mënuma leen a fay maa ngi ñaan yàlla képp ki nga xam te bon volonté nga boo mënee jàpp ci combat bi nga jàpp ci te yàlla sunu borom dong tax te yàlla sunu borom dong tax képp kuy bon bonante rek moo ngi lay ñaanal waaw bàyyiwuñu président bàyyiwuñu jabaram Marième Faye Sall ñu ngi koy gërëm bu baax waaw di ñaan ñoom ñëpp buñ ci mënee jàpp ñu jàpp ci feebar bi métti na ci moom waaw sonn naa daal gis ngeen ni mu demee doon ndaw euh, sa wéyjur bu góor teel a wàññeeku nga nekk ak sa wéyjur bu jigéen ñoom ni ànd def say di ko jàppale di ko jàppale ku ci nekk doo xeeb dara ci métier loo gis rek daal di ciy jàpp ba lii ni ko dalee yow yaay mag euh, tey jii euh, bañ la ko waxee fekk gisagoo ko naka la demee ci yow. biñ ma ko waxee fekk gisaguma ko lu ne lu ne imaginer naa ko. Mm-hmm. lu ne imaginer naa ko imagination yu garaaw sax. te boobu gisaguma ko waaye bi ma ko gisee ma ñibbisi ci kër gi mm-hmm. tëdd bu guddi sama doom jooy sel mm-hmm. demul ci lu dul ci Idrissa fi mu tëdd hôpital mm-hmm. keroog bu ñu ma yeewoon ci suba gi téléphone dama nekkatul dem na yoonam ma ko li ma ko fekkee la ci hôpital dafa metti trop trop trop trop foo ko natt fa la yem Euh, bi ngeen demee lan lañ teg seen loxo lan lañ leen wax. bon bi ñu demee avec notre petit frère bu fay liggéeyee ñu dem seeti docteur yi ñu ne scanner bi def rajo bi le lendemain la résultat bi di génn bi ñu ñëwee ba ca sur surlendemain ma yegg si hôpital le matin man maa daan xëy dem foofu parce que ki ma doon dawalal dafa voyager. Hmm. ma am 15 jours presque. ma woo sama waa service dama war def acte de présence chaque jour ma ñaan leen ñu ne ma. man nga dem continuer nekk foofu bi ma xëyee ba yegg si médecin bi woo ma je crois c'est un togolais xaw ma genre étranger yooyu mu woo ma ci bureau bi ne ma def nañ rajo bi on a vu ni loos bi yax bi ci suuf ñaari dafa déplacé wu dafa damm hmm. bi moo ko gisee man li génn ci man xaw ma ni mu toll sama rongoñ dafa tuuru hmm. ma xam ne deret dafa fort trop te dafa metti trop hmm. mu metti trop man aw ma pexe su ma amoon pexe bu ma ko mënoon yëkkatee foofu dama ko fay yëkkati. Mm-hmm. ñu ne ñu léegi il lui faut une opération ma ne ah bon ñu ne waaw ñu ne opération bi d'abord dañ lay bindal ordinance opération bi. Mm-hmm. d'abord scanner yi soixante dix mille rajo bi quarante mille yëpp c'est des frais à mm-hmm. ñi mu nekkaloon ca lañ ñëwee ci jour boobu def li ñuy def ñu jël. dem dafa maanaam fi fi mu doon liggéey fi mu doon liggéey waaw ñoom ñëw nañu laataa loolu sax ñuy dem ci ñoom euh, ci ñi nga xam ne rek ñoom la doon liggéey euh, ba affaire bi dal ko muy euh, maçon coffreur dañuy dem seetaani suñu yaay ndax moom it dund na ko dund bu metti muy ki nga xam ne rek mooy yaayam naka la ko dunde doomam jékki-jékki ñu ne la dafa daanu entre troisième quatrième étage léegi-léegi lay doon sur la 7TV ci seen émission 7 waa fii la ma fekk jabar ñoo wax ma mu ne ma yaa ñu ne Idi daanu na ko kon Idi dee na ma ne mu ne ma ne fan la daan ma ne troisième étape ma ne kon dee na ma sol sam boobu mu ne mu ne bu ma dem ma ne ko dinaa dem parce nit mu daanu te fu sori bi boo demee dee na ñu yegg si foofu ñu yegg si ñu fekk ñu dugal ko ci saal bi ma koy wax Idi Idi yow yow yaa toll fii mu sama doom dong laay xalaat mane ko bala ngay sa doom xalaatal sa yaram ma ne ma yaay sama doom dong lay xalaat maa ngi jooy rek ma ne ko sama doom dina dee sama doom dina dee comme waxtu bi dina ko fekk fii xaw ma ko woon ma ne fi ne waxtu fa yàlla lu mu lu mu jeexul du jeex waaw kon moo tax man maa ngi leen di sant sama doom ba maa ngi ñaan ko faju bi xanaa rek maa ngi dang-dang rek maa ngi dang-dang rek fu ma dugg fu ne ma dugg kon bu ma ñëwee damay feebar démb démb démb timis laa yegg si fii ma dara maa ngi ñaan waaw maa ngi ñaan rek ku ma mën a jàppale sama doom ji pour mu jóg maa ngi ñaan yàlla ku ma mën a jàppale fajal ma sama doom pour mu mën a dox daf maa métti toro waaye yàlla lu mu tuddee jaamam kenn mënu si dara waaw métti na trop trop trop ci man waaw ndax man ñi seen papa bu ñuy gaañu eh, nii tuuti la moo tax fu ma toll nii feebar kii li mu daanee nii dafa maa métti trop dafa maa métti coono bi may daj man doom maa ko xam ak yàlla maa ñaan yàlla ku ma mun a jàppale sama doom ji pour mu mun a doxi moom donc laa ñaan ci yàlla <coughs> moom donc laa ñaan ci yàlla sonn naa fu nee ma dugg fu nee ma dugg ba may laajte kii laa mujjee kii. ndaw si bii ma koy wax ne man de fi ne sonn na man amu fu may fu ma dem fu ma de ma ne ko man maa ngi nii mu ne ma xaaral naa woo am na ku may woo kii mu ne mu woo la jàpp mu dem fu muy liggéey mu doog a wax ne te wax jot naa ko mu ñëw fi wax ma mu ne ma mu ne yaayam la bëgg a wax ma ne kon yàlla baax na may na xëy na yàlla bu may nar dimbale dina ma da dimbale fii ndax damaa sonn. jërëjëf euh, mu doon loo xam ne lu yéeme la xoola suñu yaay mu ngi may wax ne seen papa ba muy gaañu boobu xale yu ndaw ngeen yor ay xale dafa metti rawatina ñi ci ëpp nekk góor. mu doon loo xam ne da ngay daw di daanu di sàmm di xool ni ngay def pour jubal euh, mu dem ba commencé noppalu foog ne mi ngi ci donkaasi gi lii daal di ñëw suñu borom daal di indi lii euh, mu doon lu doy waa naka nga ko dundee loolu. waaw metti torop. xam nga sama pap bi muy gaañu c'était en 93 boobu ñoo ngi dëkk Caaroy ñu mm-hmm. dund moom di daanu di jóg ñu jàng suñuy métier dem di liggéey pour pour noppal ko moom mm-hmm. te yàlla dimbal nañ ba noppal nañ ko sa mm-hmm. la mu daan liggéey nañ ko ko arrêté ñuy dem di ñëw di joxe boobu da doon fóot waaw ñuy dem di ñëw di ko dundal moom di fay luwaas bu feebaree ñi faj ko te parce que mag la loolu lañ ko war a mën a defal. li ñëw dal suñu kaw mu metti torop. ñi muy liggéeyal bi ñu ñëwee naka la demee woon. waaw euh, ñoom ñoo ko yóbbu hôpital. ñun dañoo fekk euh, ñu yóbbu ko hôpital. Mm-hmm. bi ma ñëwee ma njëkk leen laaj ñu ne ma ñoom ñoo ko dugal ci oto man leen war leen ko woon laal il faut ngeen woo sapeur yi mm-hmm. ñu ñëw jël ko ñoom xam ne ñu ngi jëlee ku daanu. Mm-hmm. war leen ko woon jël ñuuxu ñuux ko ci oto. yóbbu ko CTO. ñu ne ma ñun dañoo tiitoon parce que fi mu daanu moo sori moo tax ñu jël ko yóbbu ko man leen prochainement bu leen dalee wala pompier mu ñëw yëkkati ko police def constat mm-hmm. mais léegi andi ngeen ko c'est trop tard ci dara su boobaa ñun ñoo ci gën a sonn mm-hmm. lañ ko téye noonu ba ñu jox ñu ordonnance opéré bi bi ñu joxe ordonnance opéré bi ñaata la woon a été cent vingt cinq mille francs mm-hmm. ci ordonnance bi ma woo patron bi mu doon opération bi ñëwagul ma woo patron bi ne ñun de am nañ fi cas bu mel nii mu ne ma dinaa fa ñëw bi mu ñëwee bi ñu ko wooyee ci ruq wax ak moom au début dafa xawoon ma un peu réticent. Mhm. maanaam seen patron ñoom fi mu doon liggéey. moo borom kër gi. ah borom kër gi waaw kër gi waaw. Mhm. il était bon après ki mu ki Idrissa ñoo ñu taxaw ñu waxtaan ak moom mu génnee cent trente mille jox ñu. ñu programme opération bi le samedi matin. Mm-hmm. à l'hôpital général de Grand Yoff. hôpital bi pour ñu opérer te faut une caution de trois cent cinquante mille. Hmm? waaw. kon cent bi. kese la ordonnance opération bi kese ñu laaj ñu normalement bi trois cent cinquante mille la pour faire l' opération mais mbirub yàlla yàlla bu lay dimbale. doo xam fu mu jógee. Mhm. on a eu l'appui de la de la ville de Dakar du maire Barthélémy Dias qu'on qu'on remercier de passage. Mhm. di ko remercier bu baax. Mhm. suñu benn jigéen bu fa yóbbu document bi ñu defaral ko document mu octroyé ñu trois cent cinquante mille francs moo nekkoon caution opération ñu toog ba samedi ñu koy opéré man mi ñëw di magam maa fa njëkk hôpital ànd ak moom ñu teg ko ci génn ci. biir saal moment boobu naka la demee. soxna si moment ba mënu ma la ko wax li ma doon dund. dafa metti woon topp ci man doo tal ndékki doo tal añ doo tal dara. ma ñëw ci buntu saal bi ñu ne ma tey lañ koy yóbbu. tey lañ ko war a opérer te samedi lañ ko war a opérer. laataa loolu dañuy dem seetaani soxnaam moom it mu doon koo xam ne jàmbaar la ndax nag depuis lors mi ngi toog ànd ceeg moom di ko muñal euh, muy li nga xam ne sax mooy yoon ndax nag boo àndeek nit muy neex bu demee ba nakari euh, da nga war a toog dund kook moom ñu dem seetaan ko daal de waxtaan bi sur la 7 TV ci seen émission 7 voix du ñëpp di ziar ñëpp waaw santaat yàlla bu baax rek ndaxte ay une heure et yooyu la ma woo dañ ma woo téléphone ne ma sa borom kër dafa daanu ma ni daanu mu ne ma waaw ma ne kooku anam mu ne ma mi mu jox ma ko bi ma ko joxee ma wax ak moom ne ko daanu lan nga daanoo mu ne ma damaa daanu waaw boobu mënu toog mënu ma taxaw ndax metti na te it yaa julli tamit mun maa dem tamit di ko wax ndax xam naa fi ma fekk ba xam ne tamit dama daal demaat ba mu yàgg man xam naa ne amatul lu ñuy nëbb man it naa dem wax ko ko. waaw si lañ dem après direct ay 3 heures mooy yooyu ñu ngi fekk hôpital bi ma ñeeg see gisaat gis ko maa doole sant la ndaxte am na ñu bari ñun dal nag metti na lool waaye nettali wuñu ko waaye yow tànk yaa ngi dem bay nettali xale laay xam santaat yàlla. day nekk rek waaye ànd bi moom day gën a yàgg te day gën a sax su neexee yàlla ndax man booy ànd nit muy neex suy naqari war naa gën a neex te man foofu laa ko teg mu gën mooy jour bi ma ko boobu moom am na fu ma dugg dama jooy ba pare daal dama dugg dem jàpp santaat yàlla daal boobu depuis ba léegi tamit tey la sama rangoñ gi teewoon daal ndax da li mu wax dafa daw yaram santaat rek man samay mbir moom ci borom bi laa ko teg laa teg ni lépp lu mu defal dogal rek moom la neex waaw maa ngi koy santee daal waaw faj bi metti na santaal yàlla bu baax faj bi metti na waaw ku ñu mën a jàppale su chaque semaine kinis bi ñëw ñaari fan ñett mu ñëw ah chaque jour nga joxe quinze mille ñiy faj kii bi escar bi six mille francs ngay jaw daw di joxe dafa métti waaw ku ñu mën a dimbali laal te yàlla tax ñu ngi woo ñëpp waaw ku mën tamit nga ñëw dimbali ñu rek te yàlla tax waaw faj bi moom metti na loo da ngay dem ba da ngay wax sax doo xam mën a mënoo wax lépp faj bi moom romb na foofu waaw jënd garab tey suba jënd garab moom daal sant yàlla rek. mooy waaw bu mu war a def hôpital. quatre-vingt et quelques mille. waaw boobu tey defagu ko te la lëf la woon ba léegi ci weer bële. kon loolu xam nga ne yàgg waaw su sañoon jàppale ñu def ko incha allah. jërëjëf euh, soxnaam doon jàmbaar moom it ba tey mi ngi toog seen wet téye doomam assisté jëkkëram ma bàyyi la nga wax ci. waaw soxnaam jàmbaar la. Mhm. parce que tey am na nu mu doon demee ñoo xam ne tey mën nañ abandonné sax seen jëkkër mm-hmm. mais abandonné wu ko moo ngi jàmm doomam di ko toppatoo ak mm-hmm. jigéen ñi sëy ci biir kër gi fii muy sama bos ak samay bos yeneen rakk yi ñoom ñëpp ku daan ñoom hôpital buy ñibbi man dama leen daax sax parce que dañuy jooy dañuy jooy Euh, bi nga ko waree gunge euh, maanaam euh, dañ la wax dañ koy yóbbu tey mais samedi lañ koy opéré. waa dama yób dañoo ñëw samedi laa xëy matin dañuy jox rendez bu samedi lañ koy dugal bloc. Mhm. ma xëy samedi matin ba teel a yeewu julli ba pare ñaan sunu borom mu teggil ko nattu bi ma dugg oto dem yegg. Mhm. ma ma yeggee ci bi fekk fa médecin yi wër ko ñu def seen briefing. ma yegg médecin bi ne ma dañ koy yóbbu saal ñi teg ko ci lal bi ñu laaj ma ordonnance opéré yi man la lépp a ngi nii ñu jox leen fekk signal nañ ñu autorisation d'opérer ma ànd ak moom ñu pousse lal bi di pousse lal bi mais boobu moom il était conscient il était conscient que ñoo moo ngi wax ak man mhm. ne dañ koy yóbbu bloc mhm. mais bi muy wax ak yow yan doon wax ak yow dama ànd ak moom bi médecin bi ñëwee dóor tànk bi parce que ak ni mu daanoo sidit yi mhm, mu yëg tànk bi mhm. mu yëg fëgg tànk ma ne ko est yëg nga ko mu ne yëg na ko yëgu ko ma ànd ak moom ñuy puus dal mu téye sama loxo ñuy waxtaan ñuy waxtaan mu ne ma dina baax mhm. moom ci boppam moo may wax loolu ci ngëm-ngëmam mu ne ma dina baax bi ñu yeggee ba ci buntu couloir bi ma war a yem man mu téye sama loxo mu ne ma grand dina baax de médecin bi ne ma sëriñ bi yow fii la sa maanaam fii ngay yem fii ngay yem. bi ma taxawee soxna si tey laa la ko mën a nekk ko wàcc. mais li génn ci ci rongoñ mënuma ko téye parce que imagine toi sa petit frère. Mhm. bu daanoo troisième étage. loos bi damm yax yi déplacé wu sidit yi mënatul dara mënul defal boppam dara fi mu tëdd nga yóbbu ko ba ci buntu bloc opératoire bi ñu ne la fii la mëneem à l'avance avant loolu docteur daf ma ne. bu ñu koy opéré man ne ko yan risque moo ci ne. Mhm. mu ne ma ça comporte énormément de risque mën na ci jóg ko mën na cee bañ a jóg. Mhm. lépp waaye nag ci dogalu suñu borom lay doon. Mhm. mu ne ma mën na fee jóge ñàkk mobilité jambam mën na fee jóge xalaat bi mu doon xalaat nii moo ngi doon dund di liggéey di jox njabootam. amatu ko. mën na dem ba mu déprimer ko. mën na cee dem ba dootul. ba mu ba mu génn àdduna. mën na ko. loolu yëpp ci loxo sunu borom mu ne ma yow ba ngay jógee sa kër danga nga dugg oto ñëw fi mu ne ma danga nga jànkoonteeg risque ba yegg bi kon ñun li ñuy defe nii risque la mais dañuy teg lool sunu loxo sunu borom avant mm-hmm. opération bi la mm-hmm. mais bi ma ñëwee ci jour opération bi li ma gën a jooyloo mooy nekk mag jiite say rakk ñu jox la cër trop jiital la lépp lu ñuy def ñu jiital la mm-hmm. kooku tëdd fi mu tëdd nga gunge ko ba ci buntu bloc ñu ne la yemal fii muy daji ji xamoo ko. xamoo ko métti na. Mhm. te ngay seen mag. maanaam nga laan leen tette di leen gunge ba ñu yegg. tey munoo yegg tey munoo yegg. Mhm. parce que lépp ñun dañ koy defandoo. on vit en famille. Mhm. ñun ñoo bokk ndey ak baay. on vit en famille. bu dimanche boo ñëwee fii boo ñu fekkee ñu toog di ndékki da naan ñii xanaa dañuy añ. ñu koy def avec tous nos enfants et toutes nos femmes. pour jàngal leen ni ñun. Mhm. suñuy bàyyi dañoo dundoon ci solidarité ñun dañuy dund ci solidarité mhm. mu metti torop ma génn toog jooy génn dem jàpp mu tombeek heure julli yoon ma julli sant suñu borom parce que moo ñu ko dañ ko mhm. mu teggil ñu ko mu teggil ko ko moom teggil ñu ko ñun njàpp coono bi ñu dugal ko bloc ba 17 heures mu doog génn ñu woo ma ni ma génn na ñu ñëw fekk mu tëdd mu sonn. ci lañ continuer di nekk ak moom di suivre traitement yi traitement yi d'abord rek dafa metti parce que hôpital sa nga ñu jox ay détails ci traitement yi ndax sànq yaa ngi ma wax lu yéeme euh, kinési yi maanaam massage yi. 15000 mhm. la par jour. Mhm. normalement chaque jour la ko wax a def léegi mënoo leen ko def chaque jour yéen koy def ay 3 fois par semaine. waaw parce que ça dépend ci planning ma kiné bi. Mhm. parce que d'abord à l'hôpital tous les jours il faut nga jënd garab boo xam garab yi ñu koy fajee. Mhm. c' de l' argent man maa daan yor xaalis bi sama poche su ma xëyoon tey ak cinquante mille franc ci sama su bopp. Mhm. mën naa ko lekk su ma xëyoon tey ak cinquante mille franc bu ñu jox ci dimbal. Mhm. mën nañ ko lekk mu jeex ko lekk si saa que da ngay jënd garab ordonnance yi ñu koy sampal ordonnance yi ñu koy jëlal ci tëdd bi mu jëlaale ci góomu kaar. te góomu askar xam nañ dafa metti parce que góomu tëddaale la. ci loolu la àndee ak euh, seen dëkkandoo bi nga xam ne sax daanaka requête bi ci moom la jóge ndax gis li nga xam ne yéen a ngi koy dund. ay soixante quinze mille par jour ay euh, cinquante mille par jour quinze mille francs par jour y compris garab yi mu doon loo xam ne moom tikke na ko ba euh, tax na euh, mu daal di ñuy contacter pour ñu ñëw jàpp ci ci képp koo xam ne rek mun nañ ko wone pour ñu dimbali ko ma bàyyi ko ñu daal di gis ngeen ñu dem seetaani témoignage am muy Kumba Diagne léegi léegi lay doon ci la 7TV. waaw Idi bu ginnaaw weesoo feebar bi dafa nekk nit ku jàmbaare na moo tax ma bëgg ko. moom sama borom kër ñuy ànd ànd bu rafet wax dëgg yàlla mu nekk ku jàmbaare ma gis li muy dund ak seen kër li muy toppatooy jabaram njabootam yaayam wax dëgg yàlla lii moom ndogal la cat la vraiment mu metti ma torop nag sama jëkkër daf ko métti ba nga xamante ni du bu mu ko njëkkee yéeg da doon jooy ma ko fekkee mu toog ci saal bi di jooy ndax tellement da ko choqué ba nii dañuy toog chaque jour moom mënu ko gëm ba léegi chaque jour ba démb ci guddi rek ñu ngi koy wax. waaw métti na vraiment parce que seen garab yi dafa cher am na yoo xam ne sax dama koy commandé ndax tellement dafa cher wax dëgg yàlla sonn nañ trop moom. wax dëgg man mii di leen jëndal garab ak yeneen ak yeneen man xam naa li ñuy dépensé par jour wala deux jours bu nekk li ñuy dépensé. wax dëgg yàlla. deux jours dina jënd dina jënd garab vraiment. métti na trop metti na trop. métti na trop. Mhm. ñun ñi dëkk ak moom moom xam nañ li ñuy dund moom vraiment. waa man yaayam moom ma ko wax damay liggéey dajeeg yaayam ma laaj ko ko parce que def moom du ñuy gëj di gisee parce que sama doomu ndaw bi daf déjà daf ko tàq tamit day day foog moom daf ko bëgg léegi yaayam laa dajeel ma laaj ko ma ne ko ça fait des gisuma idée mu ne ma dafa feebar dafa accidenté man maa ngi xalaat ay oto wala affaire yooyu ma laaj ko mu expliqué nu mu demee ci laa woo sama borom kër téléphone wax ko ko mu ne ma looy wax nii mu ne ko waaw ma ne ko boo wàccee rek nga jubab sama maa ngi gontu nga dem fa. parce que mère Konaté woon na ma mais li ma expliqué nii ni mu waxee nii war na grave parce que quatrième troisième étage moom ku fa jógee war na grave noonu par la suite ci laa ko yëg man mënu ma ko xool sax pour ma toog ak moom ni tey pour la première fois ak quelques jours lendemain Korité laa ñëw di ziar si fekk ko laajte ko ñu ne moom mi ngi ni toog ça fait l'occasion ma gis ko mais man depuis loolu bu ma ñëwee dama koy fekk mu tëdd rek tëdd rek tey ñaari yoon laa ko fekk mu toog nii ñaan yàlla ñëpp rek képp ku ko dégg mu jàppale ñu jàpp parce que sonn na ay waa këram tamit sonn nañu ñoom ñëpp fii kër gi kenn ñëpp jabaru frère am yeeg même frère am bi toogul lépp ci moom la jotaayam toog bu mu jot ci moom lay wax munu ko supporter parce que dafa metti frère am yëpp ñoom ñëpp dañoo sonn te xam nga tamit ñoom tam dañoo yor ay njaboot di xëy di dem seen xel bu ñu liggéey ji seen xel yëpp day nekk ci moom seen xel yëpp day nekk ci parce que ñoom ñooy yëkkati ñoom ñooy tëral du ñu dem fu sori ci buntu kër gi dong la ñuy toog du gàtt ci kër gi parce que mënuñu sori il faut ñu am ay besoins yoo xam ne moom mi ñoom ñiy góor ñoom ñoo ko mën a defal jabaram tam penda ku baax la tamit ku mën a muñ la tamit ndax xale la te dafa yor doom te ñëpp xam nañ ni ku yor doom bu ndaw man dama yor doom bu maase comme doomam xam nañ ni doom rek déjà chargé la dafa metti couche yeeg lekk yi ainsi de suite puisque mu yoraale jëkkëram tamit loolu dafa metti ci moom ku ko dundul tamit boo xoolee action bi di nga xam ni metti na vraiment ci moom ku ko mën a jàppale loo ko mën a jàppale xeebuñu dara mu faju te wér dellu ci activité am ñun loolu la ñu bëgg. jërëjëf euh, kon nag euh, Kumba gis ngeen ko moom it mu ñeewantu lool nekk di liggéey ci wàllu euh, li nga xam ne rek mooy ay garab pharmacie waaye nag xam li ngeen ciy dépensé lool ni mu métti. soxna si metti na ci dépense yi d'abord ñi ñëw di faj góomu scar bi que jëf chaque jour que jëfee saa yoo xëyee bu ñu ñëwee bu ñu fajee ba pare da nga jox 6 000 francs. chaque jour waaw au début c'était 10 000 francs. góom bi gënoon ndaw da nga leen di fay au début chaque jour dix mille francs may waxtaan ak ñoom di leen remercier ñoom ñi may seetaan xëy na peut-être xam dinañ xàmmee. ma jàpp seen liggéey la. bi mu demee ba waxtaan ak ñoom ñu dem ba ci biir ñu ne ma Chérif dinañ la taxé ci li nga bëgg ñu wàññil la ko defal la six mille francs par jour. te fi ñu jógee dafa sori. chaque jour bu ñu ñëwee dañ leen di fay six mille francs par jour kiné bi chaque séance. quinze mille quinze mille la. dañ daan def bu ñu toogee dajalee am lu ñu am muy man muy samay frère ak ñi ñuy dimbale ci koñ bi ñu leen di remercier de passage. Mm-hmm. ñu jël mu ñëwee bu ñu jël quarante cinq mille jox ko pour trois séances. Mm-hmm. su demaatee quelques jours ñu joxaat ko yeneen quarante cinq mille pour trois séances. Mm-hmm. tey loolu dafa metti kiné bi dafa metti bu naree dem rendez-vous hôpital da ngay jël taxi fii ci buntu kër gi ngay jëlee taxi. ba buntu hôpital di nga fay mëni moo rek aller retour quinze mille francs ticket consultation bi ngay jënd mhm. cinq mille francs mhm. tey moo ngi am rajo bu mu war a def scanneru ventre scanner bi bu CTO bi ma demee dafa paan bu fan dafa paan bi ma demee principal on nous a taxé minimum quatre vingt dix huit mille francs yoo xam ne moom la war a def 98000 bi mu war a def la. rajo bi mooy bi ngeen di wax ne depuis le 9 lañ ko. ko prescrire depuis ko ko prescrire. mu war ko def par manque de moyens. ba tey defagu ko defuñu ko parce que li fiy ñëw su ñëwee dañ ci fay cine bi fay ci ñi ñëw di def faj góomu scar bi jënd ci médicament yi mhm. am na benn boîte boo xam ne rek presque treize mille francs lay jar mhm. bi muy jël par dix jours jël par dix jours bokkut ak besoin mi ñuy utiliser par mënuñ mhm. la calculer ñaata la par jour te xam nañ ni jamono juñ toll ni jamono ji metti na metti goo xam ne soo yoree malaat da ngay xam ni lii metti na trop trop trop trop di ñaanal malaat yëpp ñu nekk Sénégal au passage yàlla leen yàlla may tan parce que mhm. metti na trop à commencé par mon petit frère ba ci ñeneen ak ñeneen. Mhm. ñoo xam ne ñoo ngi dund situation bi di leen ñaanal yàlla may leen tan mhm. parce que metti na trop mu yor sa rakk mu naan xëy dem liggéey ngir njabootam parce que loo ko wax mu ne la sama doom. loo ko wax mu ne la sama doom. waaw ku ko ñeewante la. ku ko ñeewante la xalaat la ndax nag eh, ci kàddoom sànq sax mi ngi naan bu liggéey jee sax du mun a yàgg ndax doomam. doomam. <laughs> loo ko wax mu ne la sama doom te ren benn anecdote la weeru koor dafa jot. Mm-hmm. dañ daan def ku ci ne da ngay sa participation weeru koor moom lañ daan yore ndeeku ma xëy ci bëgg bañ ko nuyu ci weeru koor parce que xam naa ne xel ma dana dem ci koor gi. Mm-hmm. bi ma duggee ci néegam dama dugg mu ne ma grand baal ma àq oh. ma ne ko baal naa la yàlla ñu yàlla boole baal rek mu jooy ma ne ko looy jooy idi mu ne ma dama xalaat ke ni daaw weeru koor bi dama ko woor ba mu jeex ren yàlla teg ma napp bii mbir mi mu triste trop ci man sama bëti taa man mënatuma jooy parce que samay samay rongo nee la buntu hôpital laa ko bàyyi dama dem ba sonn ci jooy bi mm-hmm. bi mu waxee loolu sama yaram dafa ndaw sama yaay ñëw dugg di ko nuyu mu jooy samay frère ku ñëw di ko nuyu ci koor mu jooy. doo ko fàttali daaw. parce que doo ko fàttali daaw ak lam ca def. Mhm. mu metti ko torop mais nag doomu aadama lépp lu ñu am nañ ko sante sunu borom. Mhm. parce sunu borom mooy xool ku ko neex. mu teg la natt lu ko neex. te kenn sañu ko laaj. kenn sañu ko laaj. Euh, mais tey. Euh, sa benn cas la. Mhm. Euh, te tamit euh, parce que jot nañu sensibiliser nit ñi ci yenn métiers yi. Mhm. coffrage mason yi da ngay gis mécanicien yi dangay liggéey te doo am benn sécurité benn sécurité da ngay gis ñi nga xam ne ñi ngi ci machine yi nga xam ne dañuy waa ak yenn machine yi ñuy liggéey yenn saay sa dugg ci yenn saay sa tànk dugg ci ba récemment gis nañu koo xam ne dafa sës ci machine bi. mu dagg biir bi am na ci yenn yoo xam ne sax da nga koy ragale sax wax si mm-hmm. si écran euh, lan ngay lan ngay sensibiliser maanaam euh, ci wàllu yenn métier yi yenn jumtuwaay yi ñu war a jël ak euh, leen war a taxawoo ñoom ñi koy l ñi koy liggéey ndax nag nekk troisième di def li nga xam ne mooy di diñ ci dundal sa njaboot waaye tamit risques yi ci nekk yëpp à tout moment pour ñi nga xam ne tamit ñi ngi ci métier bi man na li ma leen di conseil mooy il faut que Sénégal ñu yokk sécurité bi. Mhm. réglementer yenn métiers yi réglementer yenn métiers yi yokk sécurité yi. parce que tey nit ku yéeg ci kaw war na mën takk boppam sol casque de sécurité. Mhm. sol chaussure de sécurité. Mhm. sécurité boppam ba nga xam ne fi mu ne bu fa jéyee doon am. dara du ko ci fekk. du ko ci fekk. te jamono métti na métti boo xam ne paj bi rek au Sénégal dafa métti. Euh, te dañuy gis ne euh, pas mal de cas yoo xam ne tourné naa ko ci genre yi. Mm-hmm. Euh, ñi nga xam ne foofu nga doon liggéey dañuy daw seen responsabilité ndax paj mi yàgg na métti na gudd na. soxna si paj bi mu mënuma la wax sax ni mu méttee ba gudd xam nga depuis le vingt sept décembre ba jamono juñ toll nii. Mm-hmm. ñoo koy dund. fi mu nii fa mu doon liggéey amatoo leen seen nouvelle. non man géej naa leen dégg géej naa leen dégg yàgg na borom kër gi géej naa ko dégg yàgg na amatuma sax contact am. Hmm. du ñuy woote yenn saa sax même pour laajte ndax tane na. peut-être woo sama yenn rakk yi mais man de dégg man de ama personne man géej naa dégg seen contact ba may génn ba bañ koy génnee hôpital. bañ koy génnee hôpital te bañ koy génnee hôpital tamit ñun ñoo ko fay parce que avec l'aide de la du fonds de solidarité nationale. Mm-hmm. parce que peut-être xëy na nit ñi état bi am na structure yu mu fi def yoo xam dañuy dimbali doomu aadama yi peut-être que ñi amuñu ñuy jaar. Mm-hmm. ñun dañoo proposé nañu dem leen fonds de solidarité on a écrit une lettre boole koog boole koog billet hôpital yeeg yëpp. Mm-hmm. on ñu dem man maa ko yóbbul sama bopp fonds de solidarité nationale di remercier secrétaire bi ma fa fekkoon keroog fàtte naa santam. bi ma ñëwee mu laaj ma. ma expliqué ko mu xool bi mu ne ma c'est pas un dossier à retarder. ci saa si lañ ma defal lettre de garantie boo xam ne cinq cent vingt six mille quatre cent presque tey bi ñu calculé hôpital lañ leen ameloon lépp ca la ca la couvrir ba tey ca lañ ko fay mais su doon suñuy moyen personnel la kon tey ñoo ngi amee hôpital det mhm. mais yàlla baax na ba ba ñu génn hôpital ci fonds ci lettre de garantie mairie de Dakar ak lettre de garantie fonds de solidarité nationale ma bàyyi la nga lancé war leen appel ba tey ndax duñu tey kii nii euh, mi ngi tëdd euh, ba tey mairie de Dakar ak fonds de solidarité euh, nationale ku ñu ci jàppalewaat ñu jël paj mi dafa metti dafa yàgg chaque semaine nga dépensé lu tolloo cent mille le mois ça te fait quarante cent mille wala mu romb cinq cent mille chaque mois ci ngay xëy doo yor dërëm dafa metti ma bàyyi la nga lancé appel ñi ñuy seetaan. li may lancé appel mooy ay defkat yu baax ñoo ngi fi Sénégal te yàlla tax ñoo xam ne defuñu ko ngir ngistal di lancé appel ñooñu parce que tey senegal on a tendance que ni sooy def lu baax dangay ngay bëgg caméra wone la te lépp looy def te yàlla tax rek def ko ci sutura di ñaan képp koo xam ne yàlla may na la doole ci senegal yàlla may na la am-am. te ngay dimbale nit ñi te yàlla di la ñaan di la tàllal loxo nga dimbale ñu te yàlla tax ak commencer par le président de la république mm-hmm. sa femme Marème Faye Sall de ministre de la santé et de l'action sociale au maire de Kër masaar mairie yi nekk Kër masaar yëpp ñoo ngi leen lancer appel. Mm-hmm. di ngeen bind ngeen ay aide yóbbu ko. bind nañu ay aide am na aide bi ñu mujjee yónnee sax dañ ko yónnee ministère de la santé. Mm-hmm. mais dafay laaj procédure. te ñoom ñëpp ñoo ngi leen di lancer appel. que ça soit Kër Massar autorité yi nekk Kër Massar. dëkkandoo yi fi ne vraiment dëkkandoo yi mënuñ leen fay soxna su ma la waxee dëkkandoo yi li fi def. Mhm. man na am na ñoo xam ne miinu ma leen woon sax parce que sama liggéey mayu ma temps bi dama daje ak ñoom fii benn jour benn maire bu dëkk fii en passage maa ngi koy gërëm di ko sant xaw ma ko sax sama yaay présenté moom keroog bi mu ñëw cinquante mille francs la yor ci loxoom. Mhm. ñoo jox sama yaay. ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci koñ bi ñoo xam ne xaw leen sax. dañuy ñëw di joxe ngir yàlla mm-hmm. di jàpp nit ñi pour di ñu yóbbu ci média privé yi pour ñu mën a def émission boo xam ne comme ni tey Kumba Jaañ ni mu def nii Kumba mm-hmm. mënuñu ko fay dëkkandoog yu baax la moo jëkkëram mënuñ leen fay de moom moo nekk pharmacie lu ñu soxla que ça soit garab yi que ça soit couche mm-hmm. moom la ñuy jox moo koy dem jëndi léeg dañ koy wéef xaalis bi léeg dañ koy yónnee du mat su ñëwee ñu doog ko mottali ñu doog jël médicament bi lu ñu laaj ci pharmacie dañ koy woo laaj ko ne ko est am na pharmacie ba su ne amul ñu doog a seet yeneen pharmacie yi ba mu am. ma bàyyi la rek nga joxe numéro téléphone yi pour képp koo xam ne bëgg na ko jàppale moom Idrissa dégg nga li mu wax. Mhm. ndogalu yàlla la. Mhm. Euh, dund na ko ak mhm. philosophie. mu doon koo xam ne ku gëm yàlla la euh, waaye nag euh, soxla na ndimbal. ku ko mën a dimbale ba ci eh, ñi ko jot a dimbale yëpp yëpp yëpp ku ko ci mën a dimbale rek. soxla na dimbal trop. ndimbal mhm. moom ñun ñu ci am rek te képp ku ñu koy defal nga defal ñu ko te yàlla tax. Mhm. parce que lépp loo jiitalu sunu borom rek c'est comme zéro. Mhm. ci moom la ñuy jóge ci moom la ñuy mujjee. moo ñu teg nattu moo ñu teggi nattu. te di ñaan moom mi sunu borom mu teggil Idrissa nattoom bii dañ ko koy ñaan. ci barke àjjuma ji mu teggil ko nattoom. sonn na di ñaan dimbal képp koo xam ne mën nga ko dimbale te yàlla tax nga dimbale que sa soit les autorités de Kër Massar les chefs de quartier les chefs coutumiers religieuses ku ci ne loo ci mën sa kéemtalaay kàttan di ko jaarale par 7TV gërëm yéen tamit parce que man xam naa 7TV fu mu ne wakaam la nekk mhm. sori na ngeen déplacé wu ba Kër masaar fii pour dimbale ko moom laaseel ko appel aide ngeen mënuñ leen fay mhm. yow mi def émission bi dañuy seetaan sa émission mais mënuñ la fay. parce que loolu lañ soxla ci Sénégal. Sénégal la xamul lu dul solidarité entre dimbalante entre kon ñun loolu la ñuy ñaan képp ku ñu mën a dimbale. dimbale te yàlla tax. Mhm. dimbale Idrissa Sagna. ku koy ku koy dimbale fan lay jaar ban ban numéro lay woote. mën na woote ci numéro sama bos sama mhm. bosu yaay. sa numéro ñaata la. man sama numéro. c'est le 77.

waaw tàggoo bi mooy ci leen gërëm yéen parce que métier mi ngeen def dafa sensible di leen ci gërëm bu baax di la gërëm yow mi soñaa ñëw def émission bi fii di gërëm ñëpp di gërëm waa koñ bi ak képp koo xam ne mës nga dimbale sa Sagna pour ma faju par ma voix ak sama famille ñoo ngi leen di ñaanal yàlla fay leen ko di leen gërëm di leen sant lu bëree bëri bëri di gërëm techniciens yi nga àndal chauffeur bi nga àndal di leen gërëm yéen ñëpp di leen di gërëm seen boromu tele parce que soo leen liggéeyee amee am am liberté pour ñëw liggéey si fii moo leen ko may xam na saa sori na carburant cher na Kër Massar embouteillage yu metti na ngeen yegg si ba fii def émission pour dimbale Idrissa Sagna mhm. kon ñun amuñ lu dul di leen gërëm di leen sant. merci beaucoup kontaan nañ trop ci yéen. Mhm. asalaam daal. merci beaucoup euh, looloo ko tax a jóg muy euh, li nga xam ne rek. mooy euh, télévision doonaat bànneex ci yéen waaye. télé bi ñu niru ba noppi di ñu dajale kon dajale askan wi fépp fu ñu mënti doon cela ak lu mu sori sori ak lu mu neex neex waaye ak lu mu metti metti moo tax ñu indil leen li nga xam ne rek mooy seen émission 7 voix du cœur wan leen ne ñëpp ci la ñu 7 TV pour que la télé soit un plaisir ñu jaajëfal leen bu baax a baax di wax ne nag ñi ngi jaajëfal bu baax a baax la famille euh, Sagna euh, di leen euh, yokk rek ñaanal xolu muñ di ñaan malade bi yal na ko suñu borom yëkkati ak jàmm euh, di jaajëfal bu baax a baax euh, ñi nga xam ne euh, ñooy seetaan di leen wax ne nag ñun jàppale jàppale waale li nga xam ne rek mooy Idrissa ndax nag képp koo xam ne yëkkati nga même juróom jox ko ko xeebuñu ko euh, di wax ne rek euh, ñu ngi ñaan ñëpp ñoo xam ne yéen a ngi seetaan te mën ko dimbale même ci cent francs sax euh, nga envoyé ko ci numéro bi nga xam ne rek moom la frère am joxe léegi ñu jaajëfal leen baax baax ci teewlu bi nii lay demee seen émission 7 voix du kër à chaque fois rek 7TV ne buy neex ñu ànd waaye buy naqare ñu ànd aussi askan wi moo ñu ba tax na rek ñu jaajëfal bu baax équipe de production bi comme ni mu ko waxee ci kaw ba ci suuf euh, ñi ngi jaajëfal ñëpp waa production montage euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu logistique bi Souley Sy ak Cheikh Sadibou ci wàllu cadrage bi Perlo ci logistique bi euh, Lamine Mbeng ak équipe ci montage bi di jaajëfal waa production ñëpp ñoom Papis ak ñëpp bàyyiwuñu kenn. di jaajëfal bu baax tamit sama chéri bi nga xam ne rek moo jaar ci tenue bi maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax bëggul ko tudd turam nag waaye xam na boppam maa ngi koy jaajëfal merci beaucoup à toi mbokk yi ñu ngi leen di jox dig daje mardi incha allah ci beneen numéro ak keneen ci li ci xolam merci beaucoup à